yi jëm ci magal bu mag bu Touba bi édition 2016 tàmbali nañu ko ki ko ubbi moo di sous-préfet bu Ndaam niki démb ci alxames bi fële ca mairie bu Touba ci comité local de développement CLD bañ fa daan amal ndaje bi ni mel nag suñu sukkandikoo ci waxu moo Modou Mbacké Fall dina tax ñu def jéego yu njëkk yi jëmale ko ci waajtaayu xew-xew bu mag boobule. jox na ci ndigalu gouverneur tey. ñu ngi dajale comité d' organisation Magal Touba premier CLD bi lañ def dajale comité d' bi dajale chef de service yi nekkat ci département bi ak ci biir Touba ak ci Mbacké ak ci région Diourbel pour waxtaanee lu jëm ci lu waajal Magal googu parce que xam nañu Magal gi euh, ah toujours boo teelu jóg man nga am ay ay lu la bett ndaxte événement la boo xam ni day dajale fii lu mat nangam million ngi nit par at ñeneen ñaan 4 millions ñu naan 5 millions kon 72 heures yooyu. Ce fi daje ci nit dafa laaj ñu teel a ci courant wàllu lepp luñ fi jëfandikoo. li nga ni mom lañu fa gënoon di te comité d'organisation bi eh, ñaawlu ko bu baax moy ñàkkum ndox bi nga xamanteni ni nemmeeku nañ ko ci magalu daw bi waye ñi nga xamanteni ñoo di kilifa yi ngank eh, secteur bobule andi nañ ci ay tontu ndaxte suñu ci waxu Mamadou Dior office forage et Riro, néna na dinañ ci jël ay motuwaay yu mot sëkk ni mel du

qui forage également nous avons ci groupe électrogène qui problème ci groupe euh, jël jël jël ndox mi ak fuite yi réseau bi ak euh, ak indi fi personnel pendant presque trois mois mu en tout cas satisfaction autorité ren non seulement dolli nañ ko ci mais euh, forage yi nga xam ne am na jafe-jafe dinañ leen suqaliwaat. li jëm nag ci jafe-jafe dem beeg dikk bi ak wallum kaaraange bi nga xamante ni nemmeeku nañu ko fii ci Touba sous-préfet bu Ndaam ne na dinañ ci jóg ci lu mu gën a gaawee indi ci saafara laata ñuy yegg si ci màggal bi. wàllum kaaraange bi waxtaan nañ ci parce que dañoo gis ni tubaa dafa gën a rëy léegi te yu bëri mu fi xew yoo xam daa fi xew ba tax na gis nañ ni gare bi gare yi sax laay ci Touba am na ay.

mais surtout pour ko Touba gépp nit ñi mën fi nekk en ba nga xam ne ñuy màggal si tam bu fekk fi jàmm ba kenn leen bundu xataal ci dara. ñi nga xamante ni ñoo teewaloon lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti secteur yu nekk ci département bu Mbacké te ñëwoon na ci CLD bi jël fa kàddu def nañ benn bilan ci atu daaw bi. sous-préfet bu Ndaam itam namm na woote ay réunion sectorielle ci ay bés yi ñu ñëw laata rek ñuy amal comité départemental de développement maanaam CDD li ñu ci jublu nag. mooy ñu fexe ba mën a amal organisation bu mucc ayib ci màggalu tubaab bi nga xamante ni ci la ñu jëm